bi dañ si dem am naa si ab mouvement nekkal fi askan bi waxtaan naa si ak coalition wàllu bi ma bokk loolu laa gëm fii ba 2024 mooy président de la république bu passé février 2024 nekkatu ko waaye tant que mi ngi fi nekk bu wootee war nañoo dem wuy ji ko pour entre réew mi li tax ma bëgg a dem bokk na si article ci constitution bi ñu changé ko bi ñu koy dugal waaye ñoo ko indi pour xañ kilifa diine yi ñu bokk ñiy laaj réew mi ndax tey article 28 boobu bu ko dindiwul ñu ne Cheikh Abdou Bara Dolly candidat mais su boobaa injustice la loolu moo tax ñu war a dem pour waxtaan ci article 28 boobu noonu waxtaan ci li nga xam mooy article 9 et 30 li nga xam mooy euh, code électoral bi waxtaan ci lu jëm ci mbirum am amnistie bi waxtaan lu jëm si leneen ak leneen ak intérêt réew mi pétrole bi gaz bi ak li nga xam moom mooy suuf si nga xam ne jabar na ay jafe-jafe